jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni diirub ci suba ba léegi yéen a ngi bàyyi xel ci bis xasida bi nga xamante ni waa daayira xasaayid bu Jurbel ñoom ñoo koy amoon ñu taxaw nag ci pàkk bu sell boo xamante ni diirub fukki at ak juróom sëriñ bi ku tedd ki def na ko fi naam nag liggéey bi buñ ko fi defee doon na lu war doon na lu sell waaye bis bi nga xamante ni moom moo am fii di Jurbel buñ ko fi ku fi ñëw rek tey di nga gis liggéey bu sell bi nga xamante ni daayira xasaayid yi tey jii amal nañ ko fi gis ngeen Jurbel gépp dañoo takku doon benn takku doon benn laxasaay gis ngeen euh, waañ wi euh, sax niñ koy waxee ay goxi gox lay doon gis ngeen suñu image gis ngeen naka noonu gis ngeen euh, suñu gox yi nga xamante ni dem nañ fa wan leen togg yi nga xamante ni fu nekk lay jóge ci ci ci biir dëkk bi ngir jàppale ko waa daayira bi nga xamante ni ñoom ñooy daayira xasaayit ñu tax ak waa daayira Njuufeen ñu doon ay soxna yu takku doon jàmbaar lool ñoom it di jàpp ci bisu xasida bi bu baax a a baax a baax saa su bis bi egsee rek ñoom it ñu am waar wu rëy yoo xamante ni ñoom dañ ko ci dañ ko ci dañ ko ci def bu baax a baax a baax xam naa ñu fas yéene dégg suñu micro rek ñu wax ñu tuuti rek euh, ci ak tënk naka la ñuy waajalee lii nga xamante ni moom mooy bisu xasida bi waaw bismilaahi rahmaani rahiim ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen sant te yàlla fi teewee naka ni déwén ndax maam Seynabou Ndiaye mi jiitu Sali jiital ko si yoonu yàlla yoonu maam borom Touba ak maam Cheikh Rahima Fall ndax ci ñu ngi ci wane ko maam Cheikh Rahima Fall di liggéeyal maam Cheikh ndax sunu maam danaan toggi ndogu kër Cheikh di ko indi fii ci kër Sëñ Touba ñu ngi leen di ñaanal bu baax yàlla ko teewee naka ni déwén li ñu ci def yàlla mën déwén ko ëpp di leen sant ba ca kanamu yàlla di sant Sali Fall ca kanamu yàlla suñu ànd bi yalla na yàlla yàggal lool ñu di ko def ndax liggéeyal maam Seex di ko sëñ Tuubaa la ñu xam ci la ñu judd ci la sunu maam di juddu ci la nekk ba nëgënal ci la ñuy sax ba dee yàlla na fi yàlla yàggal ñun ñëpp sant nañ leen gërëm leen ba baax ndax loo waay def ci alxuraan rek sa bopp nga ko defal ndax alxuraan kenn mënu koo jënd kenn mënu koo fay yal na ni yàlla teewale waat naka di teewal ñu teewee ko ñu ngi leen di sant di sant maam Sey Njaay mi xale la waaye xale b set loxo la xale bu am yar ami teggin Salif Fall ko jiite noonu ak xale bu góor bee géey yàlla leen yàlla yàggal bu baax ci barke sëñ Fall ak maam Cheikh Ibrahima Fall bismillahi rahmaani rahim man déggeen joxaane maa ngi ñaan ci daraje sëñ Touba yal na yàlla sax yoon sëñ Touba ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñun war nag sëñ Touba rek maam Cheikh Ibrahima Fall rek ne ñoo yaa njuufeen sant sëñ Touba di ko gërëm ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak suñu borom kër yi yal leen fi yàlla te ñu fekkee lépp dafay sëñ Touba maam Seydou Ndiaye mi ne xale bu yaru la yàlla ko yàlla jàppale sëñ Touba Mbacke moo leen ko dëgg daayira bi rek ñu ngi ñaan yàlla na sëñ Touba Mbacke jàppale ak maam Seydou Ayma Fall jërëjëf ah ci bis bi xasida bi nag maa ngi sant sëñ bu baax a baax a baax xam lépp Mbacke moom lii lépp sëñ Touba ak maam Seydou Ibrahima Fall ñu tax ñu ñëw fii lii ñu ko waas yàlla nañ mën déwén ko raw dem sëñ Touba Mbacke kontaan nañ trop. gis nañ njaarim. waaw gone yi ñëpp dañoo takku. ñëpp dañoo takku. bokk bi lépp mooy liggéey xasida yi. ku fi ñëw rek. wóor a sëñ gis ne takku na ana tey loolu tey noo ko gisee. ngi sama xol sedd guy rek. Mm-hmm. sedd rek sama xol dafa sedd guy fefeen ma wax sax fi nekk ni wóor sëñ Tuubaa Mbàkke. Mm-hmm. sama xol sedd na guy. Mm-hmm. ndax day suba laa xëyee Dakar ndax da xol bu sedd. wóor na sëñ Tuubaa Mbàkke kontaan ci bis bi. yàlla nañ ko téye na gën déwén dem sëñ Tuubaa Mbàkke yàlla nañ ko téye na gën déwén sant naa torop lii na jëm kanam yàlla na jëm kanam gën a sëñ li leen ñaanal nag yéen ñi nga xam ne bisu arxuraan bi ngeen yëkkati yoonu yokkute la yokkute googu leen tax a jóg nag yàlla na ko yàlla ak sëriñ Fallou Mbacke yokk ndax ndaw bu nekkee ci dëkk di gone goney ndaw ya di lugat mag ña war ci yoonu Cheikh ra yoonu sëriñ Touba bëgg lislaam yàlla na ko yàlla ful ca kaw ndax yéen kat liggéey bi ngeen di liggéey day dolli njaarim ndax ku ne xam na ne njaareem royukaay la te ku ne bëgg naa dëkk ci suufas njaareem rawatina nag suufas sëriñ Tuubaa yi di këru kër gu mag gi kon nag bu ku ci woon it ci kaay ñu def lu baax kon kookee moom mënatut a am sak fay ñun nag fas yéene na noo takku di taalu taalube di waa kër sëñ Touba di waa kër Cheikh Ibrahima Fall lépp lu waay yëngu ñu takk ca sunu ndigg laxasaayu ca maam say jaay mi ne xale la waaye moom doonee xale it ci tànki lugat lu baax rek la mboolem xale bu nekkoon ci leneen dindi nga ca la nga woon yaa ngi ci jàng xasaayit rek ñun nag dékk nañ leen seen suñu seeni loxo bëgg ngeen gënoo ñaanal yàlla gën a tàppe xol yi ci yoonu sëriñ Touba yoonu yàlla yoonu lislaam wasalaam. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf